ak ministère de l'énergie ak ministère du commerce créé woon nañ benn cadre de concertation ba benn protocole ñu signé woon ko wax ci ne bu problème mu courant amee ci secteur boulangerie bi nañu dem waxtaanee ko loolu comme protocole bu ñu signé woon ñoom ñett nañu respecté loolu au ñuy jéem a menacé ne dañuy yokk mburu mi loo xam ne mënuñu ko ñoom parce que mburu dañu ne prix bii lay jar maximum même boo ko jaayee en su baax na